amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi macha allah donc mu ngi noonu mu ngi noonu capitaine daal dina ñaan gis nanu ñoom ñëpp ñu daal di eh, téye seen loxo seen biir xol tellement amaan li nga xamante ni. moo xew fii eh, ci Tivaouane doon na mbir moo xamante ni eh, wax dëgg yàlla c'est inexplicable ci gis-gis c'est inexplicable itam ci bëgg-bëgg ak ci eh, ressenti moom capitaine nekk nag nit ki nga xamante ni moom di doom ci Serigne su Moustapha Sy Malick moom capitaine nag nekk itam guide si ñi nga xamante ni ñooy Moustarchidine yile ba waral rek saa su génnee rek. xol bi nga xamante ni ñoom dañu koy daal di àndal saa su ñëwee li nga xamante ni tey mooy en tout cas ressenti bi ñuy àndal daanu comme gis ngeen ko gis ngeen rek taalibe yi commencé nañu daal di daanu lii nag la muy wane rek mooy fi capitaine toll si ñoom mais rawatina itam fi Serigne Moustapha Sy Malick daal di toll si ñoom ñi nga xamante ni ñooy les Moustarchidine wala Moustarchidaat loole nag nekk mbir moo xamante ni bu ama am solo la nekk mbir boo xamante ni bu uh, am dayoo itam fii ci waawan comme toujours ni ma leen ko waxee rek wetu son de course ñu fekk si nag ñi nga xamante ni ñooy njabooti Al Maktoum fekk fi nag ñi nga ñi nga xamante ni tey uh, ñoo daal uh, safoo àndandoo bëgg sopp kii nga xam ni mooy Serigne Moustapha Sy Malick euh, di doom ci Serigne Cheikh Al Maktoum euh, moom nag daal di euh, jël li nga xamante ni en tout cas mooy flambe bi après que son défunt papa et euh, retrouver le ciel waaw donc nag di ko jaajëfal di ñaan yàlla may leen gudd fan ak wér di ñaan yàlla itamit sàmm leen mais itamit nangu bépp ñaan boo xamante ni daal dinañ koy yëkkati di ñaanal rek képp kuy sénégalais di ñaanal rek itam képp koo xamante ni rek daal di nga sopp li nga xamante mooy euh, yoonub euh, ya rawatina nag euh, ñi nekk fii ci champ de course toppale seen bopp ak la nga xamante ni mooy Moustarchidine wala Moustarchidaat di yoon woo xamante ni moom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al daanoon na ko tabb tànn ko ànd si ak junni junni taalibe ñu àndandoo nag bokk gëm li nga xamante ni mooy diine àndandoo nag bokk gëm li nga xamante ni mooy islam àndandoo itam bokk gëm li nga xamante ni mooy yar ak teggin ndax moom Serigne mustafa ci taarix rek la mu ñuy wan mooy bañ nañu ba tuddee ko li nga xam ne mooy responsable moral maanaam ndaw ñi nga xamante ni daal di la leen tàggat ndaw ñi nga xamante ni daal di la leen defar ndaw ñi nga xamante ni daal di la leen tàggat ba ñu toll tey ci macha allah gis sopp kenn daanu ko konteeti ñi nga xamante ni ñooy Moustarchidine wala Moustarchidaat boo fa demee bépp kuréel da nga ko fa fekk ay intellectuel da nga leen fa fekk ay ingénieur da nga leen fa fekk ay professeur da nga leen fa fekk ay nit yu am dayoo macha allah te loolu yëpp fa génne mooy ci daaray Serigne Cheikh Al Maktoum ki nga xamante ni nag mooy Serigne Moustapha daal di gérer relève bi matale ko sëkk loolu nag la muy wane rek mooy euh, dayoo ba mu am mais surtout gis-gis ba nga xamante ni daal éducation ndax nag kii di Serigne Babacar Sy radiallahu anhu di papp ci Serigne Cheikh Al Maktoum mi sanc yoon wile dafa am kaddu yu mu yëkkati woon mu ne ndaw xam-xam mooy gàllaajam ndaw liggéey mooy dooleem loole nag Serigne Cheikh euh, moom mu daal di euh, gis loole dëggal ko fësal ko ba tey mu taxawal kuréel wii nga xam ne mooy Moustarchidine wala Moustarchidaat ba tey ay junni junni junni doomi aadama fii ci Sénégal daal di ci gis seen bopp ba tey ay junni ni junni junni doomi aadama daal di ci defaru te loolu du dara rek lu dul pas-pas loolu du dara rek lu dul bëgg-bëgg loolu itam du dara rek lu dul li nga xamante ni mooy gis-gis bu cell bi mu am ci naka la ñuy àndeek ndaw ndaxte ah, daan na wax ah, moom Serigne Babacar man Ababacar ku ma jox sa ndaw ma téel la ko ba mu mat sëkk defaral la sa mag te loolu itam saytu nañ ko ci yoonu mustarshidin wala daat ndax ndaw ñi fi ne nag wax dëgg yàlla dañ leen di naataable ci lu ne waaye rawatina ab yar ak teggin ak njàng ndax yaakaar naa la nuy def rek vacances yi di jàngal ndaw ñi diine di leen delloowaat ci li nga xamante ni mooy islaam loole ndam la la ñuy def itam di leen daal di tàggat bu baax a baax ci wàllu wu ne loolee itam ndam la ba tax na rek dañu koy daal di rafetlu bu baax a baax gannaaw nag ba mu nuyoo ba pare moom ak ki nga xamante ni mooy euh, capitaine daal di nañ delluwaat ci biir fi mu ne nii nag taalibe yi ñoo daal di des toujours en effervescence gis ngeen ko léegi am na ñoo xamante ni ñu ngi daanu am na ñoo xamante ni ñu ngi jooy waaye dayoo bela rek ak tolluwaay bi nga xamante ni moom sëriñ bi toll na ko si ñoom xam naa rek du ñàkk ñu daal di jéem avancer jël quelques réactions ci taalibe yi xool ñoom euh, naka la ñu gisee mbir mi su ko defee rek ñu daal di euh, Euh, déglu ñoom itam seen euh, gis-gis déglu ñoom itamit euh, seen yëg-yëg ci li nga xamante ni moo fi xew léegi léegi concernant ki nga xamante ni en tout cas. mooy Serigne Moustapha Sy moom nag di doom ci Serigne Cheikh Al Maktoum loole nekk mbir moo xamante ni am na solo loolu ba tax na rek ñun itam dinañ daal di àndandoo ak yéen daal di leen won en tout cas lépp li nga xamante ni mu ngi xew fii ci champ de course mu ngi xew fii nga xamante ni tey jii nii mooy etu kër euh, Serigne Cheikh Al Maktoum. am na paa bu ma léegi. est du ñu dem côté bi nañ dem côté bi voilà donc dañuy fexe rek ñu jël quelques réaction par rapport ak li nga xamante ni moo fi xew léegi euh, ñu déglu rek ñi nga xamante ni tey ñooy ñu déglu rek ki nga xamante. ñu déglu rek yi nga xamante ni mooy euh, taalibe yi si seen euh, yëg-yëg ak si seen euh, gis-gis fii nga xamante ni mooy salaamaaleykum kilifa gi nuyu nañ la bu baax a baax ñu am mbégte ak kontaan fekk la tey fii ñu seet si woon ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Moustapha seet si itam ki nga xamante ni mooy capitaine ana ban yëg-yëg nga am tey bi nga jàkkaarloo kilifa gi. waaleykum salaam ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di jégalu ñëpp aussi di wax ne sëñ Moustapha sama amunu fayam. sëñ Moustapha si moom dañ koy ñaanal fu mu toll rek di wax ne macha allah tey moom kontaan nañ bu baax a baax am nañ yëg-yëg si moom te gis nañ émission am ni mu demee tey jii gis nañ li mu def fa tabarakallah taxaw na tey si bitti lu yàgg dugg na ba si yàgg mu génnaat tey am na cofeel gu jugee si moom goo xam ji jëm si njaboot bi at nu ko am na fu mu toll lu waral tey mu duggaat génnaat ci capitaine mu ñëwaat maanaam xolam fees na tey dégg na si njabootam te ñun yàlla na yàlla sàmm lañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm yàlla toppatoo ko yàlla na yàlla oyofal yan bi si kawam yàlla na ko yàlla téeñal yan bi yàlla na ko yàlla toppatoo ba mission bi ko bàyyam dénk yàlla na ko mottali ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yàlla sàmm ko yàlla wéral cër jërëjëf donc yow tamit euh, nga daa ñu fekk la fi nga xamante ni mooy ci euh, champ de course fekk la fi nga xam ne mooy buntu kër mu Moustapha Sy ana ban yëg-yëg nga am bi nga gisee ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh euh, Serigne Moustapha Sy dugg ci biir génnaat ñëw saafonte ak yéen ñi nga xam ne ne taalibe ah, di sant yàlla bu baax a baax baax am kontaan bu baax a baax ren naa diir di ko ñaanal yàlla rek yal na ko yàlla guddal fanam yan na ko yàlla fay xolam waaw kontaan na bu baax a baax a baax nu ma yeg tey mosuma koo yëg sama àdduna wallaay kii yal na ko yàlla fay ku lay jël di la jàngal di la teg si yoon bu baax wallaay amoo fayam yàlla moo am fayam yal ko yàlla fay. am na solo lool mu nekk ay kaddu yoo xamante ni. Maodo Gara amaatana allahu ala diini nabi wa xubbi seexina imaami yàlla na ko yàlla fay yiw lim ñu defal ni wax dëgg fa yàlla amul fayam dégg nañ trop kontaan naan yàlla na yàlla fay macha allah rabbi amiin yàlla na yàlla nangu ñaan donc mu nekk ay kaddu yu ama am solo ci li nga xamante ni en tout cas euh, yaay booy mën nañ am sa réaction rek ci euh, kilifa gi nga xamante ni gis nañu ko léegi mu daal ci génn daal di taxaw jàkkaarloo ko njaboot ji ana tey yaay booy yow ban yëg-yëg nga am ci mbir moome asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñu waa Sénégal yëpp. di nuyu waa dëkk bi. dama mun nag wax si micro loolu mooy problème bi. waaye daal a ah dañoo kontaan rek. Uh-huh. ndax sëñ bi moom. ku ne xam na moom ku ko topp si ay ndigalam. Uh-huh. a ah, yàlla yaakaar yàlla bi na bëgg si yow. kon dañuy daal ndaw nga xamante ni ko topp. yàlla buñ ko réccu àdduna ak àllaaxira ak mag ñi tamit si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama mun na wax si micro loolu moo tax waaye maa ngi jéggal di ñaan yàlla yàlla nekk njabootu yonent bi tey ak ëllëg nekk taaliba Cheikhu Tidiane si barke Serigne Babacar si yàlla yàlla nangu ñaan yooyu le am na solo lool muy ay kaddu yi nga xamante ni ah, suñu yaay ji way ji wax na ko donc rek ñu waxtaan ak sama frère bi yow itam ñu fekk la fii nga daal di taxaw ah, janoo ak ki nga xamante ni mooy kilifa gi Serigne Moustapha Sy ana tey ban yëg-yëg nga am gannaaw ba mu janook yéen ñaanal leen asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw ba ñu leen nuyoo nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp am mbégte ak contentement rek ndax euh, kilifa gi amuñu ku moom ndax euh, lii jafe ci penc boo ñëwee ci këram danga ko fiy fekk muy njub jafe na ci penc dëgg jafe na ci penc maandu jafe na ci penc te yooyu jafe ci rafle ci penc mi yëpp soo ñëwee kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha da nga fiy fekk xam-xam da nga fiy fekk njub da nga fekk maandu da nga fiy fekk dëggu yooyu yëpp ci ëttam lañu ko rootee looloo tax fu mu jógee ñun ñëpp ñu daal di jóg ngir yàlla ki mu amul ku dul moom muy guddi mawlidu rasul sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee ci guddi gàmmu gi mu di ñu jàngal yonent bi comme ñam nu ko yaan jàngalee chaque année waxoon naa ko daaw bi ñuy nettoyé course bi ma ne leen yonent bi dañoo am yaqin ne fii lay dal gàmmu saalu course lay gàmmoo amoon nañ ci yëg-yëg ak yaqin te nañu ko waxee woon ba mu ñëwee ca gàmmu ga noonu la ko confirmé ku déglu Oustaz Cheikh ci nettoyage course bi wax na ko mu ne euh, yaa rasulallah ki boo déggee mu naan yaa rasulallah rek xam nga ne mi ngi jàkkaarloo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom tamit loolu dëggal na ko daaw ndax nee nañu yaa rasulallah waxuma ak ngelaw li kon ki muy waxal gëm nañu mi ngi jàkkaarloo ak moom waaw loolu nag moo tax ñun tamit ah ñu nekk si ginnaawam rek di ko ñaanal rek yàlla gudd fan ak wér yaram ak suñu capitaine ah, ak mbokk yi yëpp di leen jaajëfal nag yéen tamit ci seen taxawaay waaw kontaan nañ bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw merci beaucoup am na solo loolu mu nekk ay kaddu yu ama am solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci euh, taxawaay bi yow itam euh, kaddu yi nga yëkkati am na solo ba tax na rek dañuy fexe rek xool euh, keneen ku nu mën a jël jël ay réaction par rapport ak li nga xamante ni tey moo xew fii ci buntu kër en tout cas Serigne Moustapha Sy moom nag daal di génn saafonte ak njaboot yi daal di génn saafonte ak taalibe yi daal di génn waxtaan ak ñoom mais tamit euh, daal di leen ñaanal jox dig daje nag ci kanam euh, daje course bale nga xamante ni nag fa la ko Serigne Cheikh Al euh, daan defe daje course bale nga xamante ni fa baayam daan waxtaanee mais itamit course bale nga xamante ni ay junni junni doomi aadama daan nañu fa tase te à fois bu nu fa tase rek li nga xamante ni tey jii nii la ñu doon waxtaanee du dara lu dul xam-xam ak cofeel ci